bawoon fi jàmm fekkat fi jàmm kon nag salaam mbokk xarit yu ñuy seetaan ci youtube slash tfm dal leen jàmm ci seen émission gis ci sa bopp balaa ngay gëm sa bopp ba ci ci wane sa bopp dafa fekk nag li nga def nga gis ci sa bopp tey ñu tabbiwaat ak yéen ci beneen mbir boo xam ne dafa mel leen dañ leen di fàttali mu mel ni ci dëgg-dëgg tamit da di àndandoo daal di gëstu man leen di wax ni dañ fi amoon benn séet bu rafet loolu bu sëy si woon ci benn moom nag dañ ko wutal foo xam ne dañ ko fa làq ba kenn du ko gis fan ko dugal nag dafa mel ni bunker mooy foo xam ne dafa xóot xóotaay boo xam ne ci dëgg-dëgg ay barrières yu dëgër ñoo ko daal di wër ñu wutal ko nag ñeenti barrières yoo xam ne dañ ko wër ba kenn du agsi ci moom waaye yemanu foofu dañ ko wutal tamit ay militaires yoo xam ñoo koy garde militaires yooyu su ma leen doon wàññi dañuy nekk fanweer ak ñaar nekk ñoo xam ne kenn ne da nga armé wu jusqu'aux dents pour protéger ndaw soosu ndaw si tamit day laata muy génn këram dañ ko wutal buntu kër goo xam ni ñaari buntu kër la yoo xam ni ci dëgg-dëgg nekk na kubéer boo xam dafa tëju ba kenn du mën a jot ci moom seet boobu ndaw soosu nag mooy kan bu xoolee li nga xam mooy jëmmu nit ki moom rek moo ci xonq xees ci pecc kooku la ñuy wooyee làmmiñ la langue ci li nga xam ni moom mooy jëmmu nit nekk na loo xam ne ci dëgg-dëgg laata muy génn da nga ko war a waajaat ndaxte bu génnee mun na indi musiba comme mun na defar moo tax wax mun na nekk puso di ñaw boole ay nit waaye wax tamit mën na nekk li nga xam moo di lamset di dëddale ay nit ci suñu rétroviseur laay dikk ak yéen ci 7 minutes yoo xam ni ca dëgg-dëgg ñu faram-fàccee xew-xew bi. fi ñu bëgg a ñëw ak yéen mooy dafa mel ni jamono yi dëkk bi yëngu na yëngu na yëngu boo xam ni dafa mel ni ay attaque verbale ay wax yu ñu yëkkati di ko teg ci deru jàmbur wala kenn di fayantoo ak keneen ci biir ay wax moo lëmbee réew mi jamono yi ba tax na dégg ngeen kàddu yi nga xam ni maître Abdoulaye Wade yëkkati na ko jëmale ko ci le président Macky Sall ñu bëri bi ñu ko déggee taf nañ seen i waaye loolu ndax gulet li ci réew mi wala am na fi xew-xew yu demee woon noonu wala lii cause la wala conséquence la fi ñu koy tàmbalee mooy dañuy daal di gëstu xoolaat ci ginnaaw xam ngeen ni ci année yi président Abdou Diouf Abdou Diouf bi muy yor réew mi ñëpp xam na ni digganteem ak opposition métti woon na ba toog nañ fi jamono boo xam ni ki nga xam moo di Talla Sylla yëkkati woon fi ay kàddu ni Abdou Diouf ni mu yoree réew bu ko changé wul dinañu jël ay arm dal ci kawam bi ñu ko jëlee yóbbu ko convaincre ko fi nga xamoo di yoon di ko déglu dañ ko ni yan arme nga bëgg a jël pour taal dëkk bii mu ne arme yi may wax day ca dëgg dëgg day ci laneen laa ko teg parce que dañ ko jàppe woon offense boo xam ne daf ko offensé le président Abdou Diouf mu ne armes yi may wax nag du lenn lu dul ay xasaayit yoo xam ni sëriñ bi moo ko bindoon moom laa bëgg a jël boobu am na ñuy wax nii ci bax baxaa sax lay wax mu ni loolu laa bëgg a jël jàng ko wax ci li nga xamante ni ah ci wàllu baatin bu ma ko waxee ca dëgg-dëgg war naa mën a jàkkaarloog suma adversaire politique waaye teewul moom dañ ko jël dugal ko fi nga xam moo di kaso tëj ko fa lu tolloog foofu yeneen xew-xew Talla Sylla mii ci boppam di dikkaat na ci nguuru ki nga xam moo di Abdoulaye Wade ñu dugalaat ko ci li nga xam ni mooy guuta lan moo xew xam ngeen ni génnewu na fi benn kaset boo xam da doon wax bàyyi góor gi ah ca dëgg-dëgg lim nu diggoon gisaguñ ci dara mu nekkoon kaset boo xam ne daf ko génne di ko way ñu demaat bi ci biir mu génnewaat beneen boo xam ne dafa naan Abdoulaye abal na waaye la mu ko julal mooy fi nga xam moo di Mermoz ah ci restaurant bu siiw bu ne foofu lañ ko daal di koj dóor ko fa ay marto ba mu dem ci coma nga xam ni bàkkanam des na ci kon ay agression yu jóge ci nit di dem ci chef d'état du tey la fi njëkk am yàgg na am mais lu koy sabab mooy environnement politique bi ndax assainir nañ ko du ñu yem foofu dañuy ñëwaat sur la fameuse cassette bi nga xam ni ah, en 1993 kii nga xam moo di Didou Moustarchidine wala Moustarchidati Serigne Moustapha Sy ci fayu nag parce que dañu dañu yëkkati woon ay kàddu yoo xam ni tegg ñu teg ko ci wuy juróom bu góor bi nga xam moo di Cheikh Tidiane si Al Maktoum moom mu bàyyi ba campagne yu 93 ñuy daal mu génn kaset boo xam ne dafa daloon ci kaw ki nga xam moo di président Abdou Diouf ci wax yoo xam ni duñ ciy ñëwaat waaye loolu tamit gis nañ ci biir indil na ko jeexi jaaxa ak yoon ba yóbboon ko fi nga xam tamit moom moo di kaso moom ak mënu woon leen a ah, vous m'avez euh, arrêté arbitrairement jugez-moi arbitrairement loolu day wéy di wéy ba ñu dugg ci nguuru maître Abdoulaye Wade ginnaaw Talla Sylla gis nañ fi kii nga xam ti moo di Abdourahim Agne Abdourahim Agne jàpp nañ ko fi yóbbu ko fi kaso ndax lan dafa ni nan def révolution orange loolu moo amoon ci dëkk bi nga xam moo di Géorgie maanaam dëkk yi nga xam ne dafa jege fi nga xam moo di Union soviétique ay Russie ak yooyu révolution orange boo xam dañ fi jëli nguuru Abdoulaye Wade teg fi leneen loolu indi woon nañ ñu teg ko loxo waaye agression verbale yooyu dañuy gis ni tamit ci langue politique bi ndax ci seen biir ñoom kese ñoo koy waxante dikkaat na ci nguur bi nga xam ni tamit day mooy nguuru Macky Sall. gis na ni que toog nañ fi benn jamono boo xam ni maître Amadou Sall moom ci boppam yëkkati woon na fay ay kàddu yoo xam ni le cinq décembre mu nekkoon feetu Noël dañ ko jàpp daal di koy yóbbu fi nga xam moo di police di ko déglu parce que dafa attaqué woon président bi. waaye ay réplique lay ne bu fii dóor yi fële dafay dóor yemul foofu ki nga xam moo di Bara Balla Gaye ñu ngi fàttaliku tamit yëkkati woon na fi ay kaddu mu tombé woon ak fête boo xam ne le 8 mars la woon ba nu jàppoon ci nga xam moo di soxnaam attaqué woon ki nga xam moo di le président Macky Sall. bi mu attaqué Macky Sall ñuy fàttaliku ci passeport diplomatique yi la doon wax mu ne lu tax mu koy jox ñoo xam ne ñaari tur lañ am ca def ko nangu ci ay marabu tax ñu teg ko loxo waaye nag bu xeer bi di jógee ci côté bi day jugee ci beneen côté kii nga xam moo di Ahmed Suzanne Camara ci appe la bokk. bi ñu jàppee Bara Gaye yëkkati na fi kaddu yu ñaw lool mu ni Bara Gaye ca biir kaso ba dafa mel ni soxnaam la fay fekki ñu ko kan mooy soxlaam mu ni soxnaam mooy Karim Meïssa Wade loolu nekk na kaddu yoo xam tamit egginuwul yoo xam ne politiciens yi dañ koy waxante ci seen biir bu ñu wéyee ci loolu gis nañ ne nag coow li semaine bii dafa gën a yokk parce que nag dafa mel ni lu naan le loup et l'agneau si ce n'est pas toi c'est l'un des tiens bu fekkee na ngaa saaga bàyyi jàmbur bu fekkee ne am nay xale yoo xam ne ay doom lañu mën na la ko dellu kii nga xam moo di Aminata Tall nee na moom moo jiite conseil économique et social dafa yëkkati woon ay kàddu yu tegganuwul teg ko xam ni da ko daal di ah, euh, muróole koo xam ne day sos waaye ki nga xam mu di Massaly yëkkatiwaat kàddu delloo ko ko loolu mooy indi expression bi nga xam moom la wax tudd ndaw si daal ci wax lu mel ni que prostitution politique ñu daal di koy woo fi nga xam moo di police moom tamit déglu ko loolu mu mel ni boo ma sànnee xel ma sànni wat la ko ci langue politique bi beesu fi day am chaque chaque jour ñu gis ni que loolu tamit day indi jiixi jaay xom ne yoo xam ne day yëngal réew ba tax na nag bi bi ci biir ci la maître Abdoulaye Wade yëkkati ay kat yoo xam ne daf ko teg ci kaw président Macky Sall ñëpp dégg nañ ko ci wàllu seen waaso wala ci wàllu seen cosaan wala wàllu ki loolu duñ ci delluwaat loolu tamit li nga xam moo di jóge ci président bi mu mel ni ndax cause la wala conséquence la parce que bu ñu seet mbirum Karim Meïssa Wade ci wàllu créé fa mu déparé loolu moo dellu si waat ab Abdoulaye ci dëkk bi te dañ doon wax góor gi ñu ni ko ah li la naqari da nga koy muñ mu ni leen fan la ni muñee ñu ni ko ci xol la ni muñee mu ni fi ñuy muñee foofu lañ ma jam kon dañ ma jam ci xol Maître Wade tànk doomam Karim Meïssa Wade mi ngi fi nga xam moo di kaso bi mu mel ni ci gis-gisam ak gisu waa PDS dañ ko jàppe d'une manière arbitraire parce que li Maître Wade amoon ci ministre bëri noonu ay téeméeri ministre la ñu acharné wuñ ci kenn bàyyi ñeneen ñi tànk loolu tamit clé bi ni ñu ko defee ñu bëri ne nan ah ñu mel baaxul loolu indi na ay jeexi jaaxa yoo xam ni fayantoo dóor fayu dóor fayu mi ngi continuer ba tey ci diggante nguur gi ak waa PDS ca lan moo war a nekk épilogue mbir moom nga xam ni xamuñu fan lay daal di jeex ci wàllu nag wax yaa ma waxoon ma wax la loolu nekk na loo xam ne ci culture sénégalaise xam na ko mais langue politique bi faw nu assimil ko parce que gis nañ fan yi ci ginnaaw ki nga xamoo di Moustapha Niass yëkkati woon ay kaddu ginnaaw bi nu taqalee Malick Gakou bëgg a indi ay tendance ci biir AFP wut candidat wax na tamit ba yëkkati ay kaddu yoo xam ne dafa mel ni wax na wax joo xam ni tegnuwul ci ki nga xam ni am na statut bi nga xam ni noonu la daal di taxawee loolu mooy langue politique bi jamono yi ñuy seet nag ëllëgu coow lii lan lay doon ñun li ñu wax ni du ñu ñoo ko wax dañ leen bàyyi yéen tamit ngeen analyser ko wax ñu lan moo ci seen point de vue ci fii situation politique gu réew mi toll ca toll na foo xam ni buñ ci jugul ca dëgg-dëgg nag dina doy waar. kon nag moo ko xarit yu ñuy seetaan ñoo ko gisandoo ca dëgg-dëgg ca sañse ba ca taar ga soxna si ñu leen woon nag kii nag moo di Boury Bathily Boury Bathily nag suñu ko déggee mooy soxnaw ki nga xam moo di le lion de Guédiawaye bala Gaye I don't care moom nag nekk na jigéen joo xam ne ah, yànj na lool kooku nag mooy ki nga xam ne ca dëgg-dëgg nag ah moom nag moo yor li nga xam moo di kaani xeeñam kon nag mbokk ak xarit ci ñu doon seetaan dafa mel ni suñu émission gis ci sa bopp ak si fi nga xam moo ñu cappaandaw ga duñ def lu dul tàggatoo ak yéen di leen wax ni daas du yàq paaka dañuy dikkaat suba ci beneen gis-gis boo xam ne ci dëgg-dëgg fii lay xawee ca seen kumpa doon may jaajëfal ñi doon seetaan ñëpp sama xarit njokk maa leen jëng London waa daaray Pakatas ak sama turandoo Bara ma nekk Albanie fi nga xam moo di New York dama leen di wax dem dikkaat musta yàq ngolo à demain incha allah